asalaamaaleykum wa rahmatullah mbok internet yi chaîne football TV nuy naa leen bu baax di len wax ni rek sama voix du xaw un peu problème xam donc euh, changer na xeyna ben benn momay moom may ñaanal len ma sax yalla defal ma tan ndax bëgguma am soj <laughs> en tout cas voix bi changer na un peu loolu la di leen continuer di leen remercier rek si ñii di like di partager di aimer bokk internet yi te damay ñëw nag répondre euh, seeni question ay jours yu xamante ne franchement kenn xamul fa lañ jëm wala boog amatuñu si ñoom benn information Ismaïla Sarr la Bouna Sarr la euh, Saliou ak kayta balde tout d'abord dama koy dooree si kii di kayta balde kayta balde dans le full total boo xoolee première semaine mercato yi doon nañ ko dégg fu nekk surtout du côté de Turquie mais ni ni ni ni ni lan question je pense que euh, nous libre si du parce que de c'est un gars libre dans un projet ambition xam donc par rapport coupe du monde un gars comme Keita je pense que foofu lay gën a xaaree mais ñàkkul ñu koy demandé ñàkkul ñu koy demande xam parfois t'as besoin du temps mën nga am mën nga dem équipe bu baax ñu ne non ñu daal dañ la ñëw woola pour ngay doublir complète si toutefois nag nga wane sa bopp mën nga nekk titulaire xam loolu benn loolu discours boobu arrangé wul a dem xam nga foofu dina fa jouer à cent pour cent que foofu la gën a nekk di xaar parce que daaw Cagliari la dem nous sénégalais ñu yaakaar nous tous les matchs qui nous ni mu cette fois ci xëy na très attention Bonne destination Donc, il faut warul tarder en tout cas les dernières informations que Turquie lañ a envoyé Besiktas euh, Galatasaray euh, MLS États-Unis euh, quelques clubs du côté de de Serie A Ligue 1 française donc voilà on va voir la qualité de di en tout cas vu ces dernières saisons nous ñi douté un peu. ñuy ñuy douter un peu keneen ki c'est ça, Lucis Saliou Ciss ñu yaakaaroon nañu jamono bi bon trouvé na club bu yàgg Besiktas lay doon xam parce que moom lañ ko invité du euh, des stv euh, mu ñu posé question yow ban club nga mu ne daal mën naa dalal xelu Sénégalais yi première division moom lay joué bu nekkul Turquie dina nekk euh, France xam nga donc après quelque temps après ñu ne moom def na voyage agent moo ngi Istanbul donc Turquie loolu bi bi ñu ko waxee léegi war na def trois semaines ba tey man ñu la wax ne Saliou Ciss fii lay dem Saliou Ciss aussi il faut que mu teel a jël décision dem benn club parce que donte confiance bi à lui, jox na que titulaire sénégalais yi instant franchement mo fa mais s'il tarde à trouver un club et que pendant ce temps Ben, Ben, Ben, Ben, Ismaël Jacobs am temps de football, football, un Touré sans club par rapport aux statistiques performance performances, est ce que ça lui Cissé lañu war donte équipe nationale xam a contexte la ak club mais on a toujours besoin c'est que coupe du monde bi du coupe du monde yenen yi quoi coupe du monde bi c'est comme ni ngay débuter saison di nek ci forme ki nek ci forme si début saison bi bu dee coupe du monde football alors que autant daanu nekk noonu danaan jeex saison bi dañuy dañuy football ba jeex dem ba sonna moo tax temps rek naa gis benn produit ki ñëw di gis ak yeneen joueurs yi xam na lan tek ci si banc alors que cette saison bi demeewul ni ki di am temps de di performer en club kok mo meuna a euh di wone bopam donc euh, moo tax Saliou il faut que xaw tukki van lay jouer il faut que mu trouver lu mu gaaw gaaw gaaw ñun ñu ngi ñu ngi xaar lu mu gaaw gaaw naka def pour trouver du club foofu Turquie xama fa la côté côté salaire bi mooy problème côté euh, contrat bi durée bi parce que bo amé yenn âge yi tu as besoin d'un contrat durée bu xamante parce que parce que moi ce dernier contrat xaalis som ben bi il faut que tu sois performant pour amaat yenn quoi xama nga euh, Saliou li gëna nek nekk li mu nek xalé wess nak donc lo yeb da si joué moo tax peut être muy muy jël stand by toog di xaar kenen c'est qui c'est c'est euh, c'est qui dit بونسار بونسار بونا سار تمي كان مانو لا واخ لا لاي ديف كان مانو لا واخ موم خامنا لي بوغي جوي كوب دو مون واخ نا سي اي انترفيو دو بن بي سبور غنال اك يينن اك يينن ا باسي ديرني فيديو بي ني سيدان مي دون ديف اك كين سور يوتيوب موي او ماي جول بوب نونو نوم دو فاس بوغ تان دي جو دا فا بوغ فوتبول باسكو دا فا بوغ جوي كوب دو مون دونك لوم بوغ لا مينا لوم بوغ نون نك دا فا اندك مو جوغي بار باسكو بار نا نيو واخ نتي دغ دو توت لير ديفان بافار xam ay coupe d'Allemagne lañ ko mën a teg ay match yu xamante ne dañuy dugal match bi gars yi gérer li ñuy gérer dugal ko xam xam nga donc loolu yëpp da ciy joué donc Bouna Sarr pour quel club Marseille moo ngi bëgg a tëju parce que Marseille jënd nañu Colosse boobu noonu Jonathan Colos Lens xëy na mu dem lance peut-être remplacé ko foofu pour man benn prêt wala surtout première ligue laa gis Bouna Sarr parce que rêve am la man xam naa ne bëgg na dem première donte dafa wax ne bëgg ñëw Marseille mais gis nañ ne euh, kii di euh, Longoria kii la jënd vu salaire bi c'est Bouna Sarr salaire bi mu am bu Marseille bañ ñu ko mais salaire bi mu am moo tax close lañ jël close salaire bi demeewul noonu xam nga donc c'est man surtout man je le vois en première mel dañuy bëgg jour bu xam ne day joxe te du calcul li may na sax loolu noonu il est dans le flou je pense que il man tout ce qui est offensif d'accord aw ma problème à part ça mais man concentration war na gën a dëgg war na gën a leer sa sama bopp propre défensivement parlant côté Bonassa. Bonassa moo ko waxoon sur Plus donc il y' a tout ça je pense que euh, du euh, ak ak y' a y' a bi fa mais il faut que nous changions changer club parce que pendant ce temps que nous sommes en Berne, ça va mën na am temps de jeu Nous, Afrique nous ñëw na Brest on va voir nag kon Bounassa saison bi lan lay def. on va terminer par Ismaël Sarbi. bi xamante ne mercato bi dafa door rek Ismaël West Ham Newcastle Crystal Palace nangam nangam nangam nangam pendant ce temps ñu ngi koy mu ngi fii ba tey Watford au début sax dama sax seen entraînement après ñu ne entraînement yi donc xam nañ ne moom waratul su championship ne waratul niveau championship parce que aussi tamit waaye Watford sax peut être duñ ko mere parce que bu ñu koy soo dafa nekkoon zone bi gën a seer si histoire Watford si wàllum xaalis équipe bi ñëw ñu changé entraîneur yu jeex ñu wàcc deuxième division moom mu fexe def le tout ba ñu yëg ñu jox ko meilleur joueur Watford ñu yegg première division ñu wàccaat mën fa toogaat ne da leen da leen muñal je pense que wat wat foo sax euh, li ñu investir moom bëgg nañ ko récupérer pendant ce temps ñoom dañu tim dañuy xool offre bi ñu gën a arrangé donc ça dépend pas plus de pour man ça dépend plus des clubs de Watford ak yeneen club yi ka def Ismaël Sarr dans ce cas précis parce que Watford aussi tamit Newcastle xam naa la ko gën a bëgg a jàpp parce que Newcastle somme bi ñu bëgg dëgg Newcastle moo leen mën a jox ñeneen dañuy waxaale xam donc donc West Ham lañ ci mais West Ham lañ waxaale man je pense qu'avec Moïse ça peut être intéressant quoi franchement parce que le football nañu jouer nañu xam nga ñun c'est qu'en tant que Sénégalais on voit Ismaïla Sarr comme ni ñu ko gisee Sadio Mané dem yenn équipe yi mais mën na nekk tremplin quoi pour mon West Ham Crystal Palace Newcastle surtout Newcastle moom dañu tabaxaat équipe XSR même ton de joueurs yi bëgguñu non non non non il faut nga génne yenn somme yi mais y a tout ça moo euh, mbiram yéex quoi qui di Ismaïla Sarr mbokk yi lii moo nekkoon ay information yi mu leen bëggoon partage ak ay yéen ci commentaire wax leen ma seen xalaat gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba sur Senfootball TV asalaamaaleykum